woote nañ ko fi fan yii nga xam ne moom la ñu génn tubaab yi ñoo nekk ci ginnaaw Macky Sall te nag Macky Sall jot na muy wax askanu Sénégal dëgg Tony Blair ak Sarkozy démb tamit Ousmane Sonko yàq na leen musiba ak mbelengaan ndax moom dafa jàpp ne Tony Blair ak Sarkozy ñoo nekk ci ginnaaw Macky Sall ñoo nekk ci ginnaaw ñaari loi yi nga xam ne fan yi ñu jàll voté ko ci assemblée nationale Ousmane Sonko njiitul Pastef ci yéen kaay gii di 24 nee na nag jot na ñi nga xam ne ñooy français yi daal di ñuy may jàmm ndax am na ay entreprise française yoo xam ne ay mercenaires la ñooñu nag jamono ji ñoo ngi waajal ngir accaparé ngir ngar dajjoo li nga xam ne mooy sunu pétrole bi ak sunu gaz bi Ousmane Sonko nee na Macky Sall li nga xam ne moom la bëgg nag ngir mu réussir ko il faut mu jaxase ñi nga xam ne ñooy communauté religieuse bi waa Grand Place Ousmane Sonko di mettre en garde di dànkaafu ki nga xam ne mooy général Moussa Tine mi nga xam ne moom la ñu tabu yees ngir na mu nekk au commandant de la gendarmerie daan na yekk musiba ak mbelengana ki nga xam ne mooy Antoine Diome njiitul Pastef du Sonko nee na Antoine Diome moom na fitu jaay njabootam gi yëpp ngir nag Macky Sall lépp loo xamante ni lu bon la moom lañ koy def loo yéen a kaay gi di l'info Ousmane Sonko nee na Tony Blair ak Sarkozy jamono ji na seen i pexe mooy fexe ba maintenir Macky Sall ci pouvoir bi su ko defee ñu mën a teg loxo li nga xam ne mooy pétrole ak gaz bi feeñ ci réewum Sénégal njiitul Pastef nee na nemmeeku tuura ñoom nag ñu ko def par force amul kenn koo xam ne dina leen ko tere def nee na nag Pastef maanaam mooy cible principale bi te seen parti bopp yi dañu ko bëgg a tas waaye nag ñoom Ousmane Sonko daal nee na ñu ñoo ngi leen di xaar a kaay gi di 24 heures daanay xëy ñëw ci lu jëm ci wàllum protection ñi nga xam ne ñooy borom ñaari tur yi conseil d'état français ñoom nag daan nañu rocc Sénégal ci yi nga xamante ni maanaam dañuy may jàmm ngóor jigéen yi conseil d'état français dañoom daal dañoo xool ne Sénégal borom ñaari tur yi amuñu fi jàmm moo tax ñu nañ fa Sénégal yéen kaay gi di direct news ñu xëy fekk fa Moussa Seydi muy def nag ay révélation yu doy waar ci jëm ci wàllum gi yaram gi nee na nag ay panne d'oxygène dafay faral di am ci hôpital Fann ci hôpital Dalal Jàmm te loola nag musiba gi mooy bu panne amee ay tension moo am ci université Cheikh Anta Diop bu ndax lu toll ci deux cent cinquante étudiants yoo xam ne conseil de discipline bi daan nañ leen di convoqué yéen a gi di réew mi quotidien xëy séq waxtaan wu yaatu ak bii di xumaana turam dëgg di Maxtaar Fall wax na lu bari ci yéen a gi di réew mi quotidien nen nag moom saa su nekk dafay jege li nga xam ne mooy askan wi te musuta ànd ak pouvoir lépp lu mu defa intérêt réew mi la te ci li nga àdduna moom xumaan na daan nay wax ne journal rappé bi nga xam ne ñoom doon nañu ko def daal ñàkk ay moyen moo tax jamono ji ñu daal di koy tegandeegoon ci suuf yéen kaay gi délibération xëy duñu xibaar naan ñu ginnaaw faatuk élève bi di Cheikh Bamba Ndiaye ci lycée bu Parcelles Assainies unité 13 ginnaaw am match de football am na ñetti élève wu classe seconde yoo xam ne teg nañu leen loxo ngir ubbi cab enquête yéen kaay gi dee sat xëy ci coupe d'Europe bi Espagne niki démb éliminé ñi nga xam ne ñuy waa Suisse Italie éliminé Belgique tey ji nag Tchèque ak Danemark danañu laale Angleterre ak Ukraine Ghana yéen a gi xëy duñu xibaar ba tey naan ñu Copa America bi tey jii Uruguay dina laale ak Colombie Argentine di laale ak Équateur yéen a kaay gi de sunu lamb nee na Balla Gaye numéro 2 ma nga France Ama Baldé ma nga France rëg-rëg ma nga États-Unis guy gi ma nga États-Unis gi xëy sambab laaj nee na mbër yi lan moo tax bu ñuy wàaj seen combat yi dem di ko waajee yi ca bitim réewa loole ab laaj la Malick Thiandoum andi ay tontu nee na mbër yi dañuy bëgg tranquillité ak récupération te loolee bitim réew la ñu ko mën a amee